الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga. bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri. waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ali Imran TV seen télévision bii nga xam ne wala seen seen bii nga xam ne ci ngeen abonné te ku ngeen gis na ko aboneel aimé ko te ku ngeen gis na ko aiméel di partager ak participer dellusi na beneen yoon ci seen jataay bii di xadisu bés bi xadisu bés bi tey mooy fukkeelu hadis ak ñett mu ngi tudd min kamalil imaan min kamalil dafa bokk ci gëm gu mat wala ku bëgg sa gëm mat mbokk yi lépp loo dégg naan mat na jàppal ca wet ga ne manqué naa nga fa lépp loo dégg ñu naan manqué na jàppal ca wet ga na jeex naa nga fa <laughs> allahu akbar mat na manqué na jeex na moom ngay dégg lu ñu tuddee doful imaan doful iman ba fekkoon ñu jàng tubaab ñoom Fat Ndiaye ak Fat Diallo ñoo koy jàngale dañ naan la dégradation de la fois doful iman hadis bi nii la tëddee an abi hamza anas ibnu malik radiallahu anhu xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an innabiyi qaal laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axi maa yuxibu li nafsi rawahu lbuxaari wa muslim abu hamza mooy anas ibnu malik anas Euh, ca ña doon jàppale yonent ba ca liggéeyu kër ga la bokkoon bu dee jigéen mbindaan lañ koy wax bu dee góor xëy nañu wutal ko weneen tur ba mu des mbindaan mu góor ca kër ga la nekkoon di lal di lal basang yi di lal sa jaada gi di lal der bi di defar socc yi tey duy satala ga ndax yooyu lislaam daf ko bëgg te mooy ku ne ci kër gi nekk dongo ba jawrin di jàppale borom kër gi ci liggéey bi loolu sëriñ sépp ko doon am Isa ibnu Maryam moom la amoon tuddee leen ay xawaariyuun yonent bi am leen moom tam alayhi salaatu wasalaam anas nee na yonent bi nee kenn ci yéen du gëm maanaam ngëmam du mat lu dul mu àgg ci niveau lim bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam hmm? kenn ci yéen ngëmam du mat li feeg àggul ci lim bëgg la bëggal mbokkam luy loolu li feeg li nga bëgg bëggloo ko jullit yi sëg nga matagut loolu nag kon nit daf ciy liggéey ba lim bëgg mu mën koo bëggali mbokkam ay mbokki jullitam waaye bëggal sa bopp milliard bëggal sa mbokki jullit yi mille francs diggante bi soree na lool bëggal sa bopp mucc fii mucc fële bëggal nit ñi ñàkk mucc loolu tam loomaate na lool alayhi salaatu salaam di jàngale anas dégg ko ibnu malik te woon ca kër ga dégg yonent bi di wax lii laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi léegi nit jullit ak gëmam du mat lu dul dafa toll ci lim bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam ku ca toll sa iimaan mat na ku ca tollut sa imaan manqué na te imaan gu manqué ma ne lépp loo xam ne dangay ngay dégg ñu ne mat na yëgal ne manqué nga ca wet ga loo dégg ñu naan manqué na eh, jeex naa ca wet ga jeex na manqué na booy dawal oto da ngay dawal mu yàgg oto bi na la ah carburant bi kat manqué na <laughs> daal di taal benn làmp nga dawal mu yàgg mu ne la mat na mu ne kërëng nga paan essence loolu nag yàlla bu mu dal yàlla bu mu leen dal mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam sunu kilifa gi ci hadiisu fukkeel ak ñaar ñett hadiisu fukkeel ak ñett lim nu wax leerati na waaw nee na balaa kenn am ngëm gu mat day toll ci lim bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam al buxaari ak muslim yàlla na yàlla fayal fayal leen xeet bi ñoo ko nekk ci li yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonné ba noppi ba a fàtte laal kolos mooy seen bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna